seen addiya seen taalibe yi ñooy defar seen i juma seen taalibe yi ñooy feesal seen i ziar seen taalibe yi ñooy ziar seen i almeer donc tey dañuy toll période yoo xamante si nii seen askan moo leen soxla donc sëriñ si dañu war a jël seen responsabilité ex li fi am mooy dëgg mi ngi nii lu dul dëgg mi ngi nii da ngay xool bu dee yàlla mu rek ngay waxal ak sharia da xool li dëgg nga dem si ba jeex ci tàkk ku la mere mu mere la si loolu ok hypocrisie bi di wax ka ni réew mi bu fi kenn yee fitna jàmm rek la Sénégal xam loolu ñun ñëpp ñoo ko xam ñiy dox ci mbedd bi ñu leen di dóor ak ñi ñu rey seen doom ak ñiy dàqante ñu leen di dóor ay lacrymogène ñuy sànni ay xeer yu ndaw ñoo ñooñu buñ sañoon loolu du leen dal loolu kenn bëgg ko réew tollu période boo xam na sëriñ si jël seen responsabilité daal di wàllu seen askan li fi nekk mooy soxlawul ñuy wër wëral wax ji nan wax ci dégg bi problème bi mooy Ablaye Wade suñu président waaw non ex. waaw ex waaw bu ko dagg ko ñaan. ok Ablaye Wade suñu ancien président dafa war a dégager maa nekk. je pense que message bi message bi leer na waaye comme li ñu aussi dañuy dellu si waat léegi nag. non leeragul. waaw leeragul. acca parce que sëriñ si xam nañ ni Ablaye Wade il est ci ci illégalité lay dund. ok. léegi nag léegi ñu dellu si si kaw. non kay kay léegi ñu dellu si dañuy waxante dëgg dañuy ñu ngi lekk ci temps bi non farata wax nañ lépp nan wax lépp. waaw instant sëriñ sépp xam nañ que ni Ablaye Wade si illégalité la dëkk. Ablaye Wade na bàyyi terrain yi muy dagg di ko jox sëriñ si tous les jours na bàyyi milliards yi jox di ko jox sëriñ si tous les jours est ce dégg wax loolu lépp pour nelawal sëriñ si la pour bu décision jotee sëriñ si bañ a mën a bañ a wax sëriñ si nañ wax li fi ne woon Ablaye Wade ci côté loi la ñuy wax juriste yëpp taxaw nañ nañ waxante dëgg affaire bi question de droit la waaw ñi jàng nag ba ñu ñii ñooy juriste Sénégal yi juriste yëpp taxaw wax lu leer na bi di comme quoi kii amul droit bokk la moo tax lan moo tax. waaw sëriñ si di wiir wiiral nii di wax ay waxi jàmm Sénégal bu kenn yee fitna. waaw kenn bëggul fitna Ablaye Wade moo yee fitna ci dëkk bi ne ko sëriñ si wax. ok léegi léegi ñun léegi ñun si léegi nag léegi bon loolu parenthèse la woon mais fi mu toll nii foog ñu dellu si nag. léegi waaw tey eh, amul droit bokk si mën a da si bokk. non ci la ci bokk wax nañ ci. moom moo fi taxawoon ne mënatu bokk ba ñëpp dégg ko parce que moom bi muy wax loolu. le message est passé léegi gars yi tàcc léegi nag euh, je lay waxee aussi c'est important nit euh, aussi ñu gis ne euh, actuellement euh, war defar defarwaat tuuti moom mooy côté entertain bi ci hip bi et c'est très difficile actuellement parce que gis nañu ne entertain côté entertain bi ça va pas aujourd'hui quel yow ban politique wala ban stratégie la rappeurs yi wala gën a utiliser afin que côté entertain bi taxaw ci biir mën a bay waaram ci biir hip bi. waaw ex waaw amoo tax ñuy dóor étudiants yi. <laughs> waaw waaw mais dit léegi il faut que yi. waaw ñoom ñooy avenir u Sénégal ñëpp nee nañ jàng mooy avenir Sénégal. waaw tey boo demee ay kalachnikov ñoo leen di su ñu taxawee laaj seen bourse ñu sànni leen ay bombes lacrymogènes. dañu waxante dëgg waaw d'accord mais léegi nag léegi léegi nit oh, dëgg la mais fi mu toll nii il faut que ñu dellu si waat parce que dëgg la euh, wax nañu message bi jàll na waaw et que le plus important mooy que aussi ñu wane aussi suñu taar li ñuy def loolu parenthèse doon parce que le plus important mooy ñu nit ñu ñu ñu ñu jox priorité suñu musique aussi quoi ah léegi nag euh, aussi ñu gis ne euh, mooy li ma wax côté entertain bi dafa des loolu bëggoon naa ñu wax ci léegi la moo tax Karim Wade beneen sens yoo xamante dëgg waa léegi la moo tax ma posé la benn question waaw pardon non ma wax benn affaire lan moo tax. waaw lan moo tax dañuy waxante dëgg ah. lan moo tax ku mën ne Youssou ku mën ne Youssou Ndour comme ñun ñëpp ku mën ne Youssou Ndour amul lenn lu mu defalul Sénégal créé na ay emploi def na lu bëri pour Sénégal lan moo tax ku mën ne Youssou Ndour ne damay bokk ci élection Karim Wade ne ko doo si bokk conseil constitutionnel ne ko doo si bokk. waaw loolu loolu. lan moo tax ñun sénégalais yi ñuy nangu loolu ñun sénégalais yi ci benn espèce sénégalais Karim wóoruma sax ndax sénégalais lan moo tax ñun sénégalais yi ñuy nangu loolu. ok. léegi dama lay wax benn affaire waaw waaw man paraluma kenn. waaw dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi. lu may wax sama gaale nii loolu laa lay waxaat. absolument lan moo tax ñuy nangu ñeneen di jël décision suñu kaw ñu koy nangu. waaw d' accord amee léegi léegi waaw léegi tamit ñun dañoo ñàkk fayda. waaw d' accord léegi message bi jàll na. conseil constitutionnel ay client lañ. <laughs> waaw waaw mais waaw non mais xam nga la loolu c'est une parenthèse vraiment. cinq mille wax wax nañ wax nañ ci ba pare sérieusement je sais qu'actuellement aal ngay demee c'est vrai parce que bon malheureusement euh, ku kuy dund ku ci nekk dinañ gis ne euh, mais actuellement li ñu mën a def ma mooy on est obligé de revenir dans le dans l'émission euh, parce qu'on a un problème de temps loolu buñ ci wax fi ba suba bilaa walaay xool xool la ñuy demee rek tu vois le plus important mooy xam nañ sa position say conseil sa message romb na léegi dama bëgg euh, pour que ñu mën a dem encore ci beneen beneen niveau ñu def benn sound you know avant ñuy ñu avant ñuy boucler la boucle quoi ñu def benn sound ñu dédié ko gars yi nga xamante ne xëy noonu ci tolof tolof wala nekk ci jël bi wala ñoo nekk ci malheureusement ci mauvais côté bi. ñu war a nekk si jeel bi nekkuñu si jeel bi. ñu war a nekk si jeel bi xam nañ leen ok gars yi kon ñu ñu leen benn bon. ñu jox leen benn sens. waaw ñu jox leen benn sens waaw boo bëggee ñu àggale débat bi parce mooy loolu man si loolu laa bëggoon. <laughs> ok ma daaxal benn sens gars ñu jox ñu benn sens ex day taw. a am Hepsi bulmalı bu yöne Ben de sensin bu yöne Halime hasbeyim Depo shaking that when I flow, I'm feeling good. Clap your hands

ko donc nit dof fans club am et c'est important aussi parce que bëggoon naa waxal aussi parce que nit soo fi nekkulee gars yi ñoo la fi nekkal euh, bëgg naa quand même ñu jël benn président fans club wala kenn benn membre fans club you know nit dof famille killa famille bi mu wax alors euh, sëñ bi tur bi naka la waati Ali Ali euh, yow yaag président bi waaw léegi dañ la bëgg laaj looy wax ci jëmm ji ak seen kàddu par rapport ak ki nga xamante ne mooy kii la. bon kii la li ci wax bëriwul mais toujours ay soxom rek wane na moom mooy kan quoi toujours wane na position euh, si li ngeen débat rek jarul mu wax la fi mu teg public bu Galsen bi quoi loolu lañ koy delloo njukkal quoi moo tax à chaque fois toujours bi nekkee bi fi nekkul ñu ci gannaaw c'est ça. am ngeen projet pour nit dof oui am ay projet yu mag ndax ngir moom euh, Killa Family ab structure la boo xamante ni ci hip hop galsen da jàpp ok suñu priorité nag moo nekk ni dof xol la moom waaw léegi nit euh, dernier album bi kañ lañ ciy jot waaw balaa mooy wax dara damay jaloo njukkal sama fans yi comme ni ma koy defee saa su à travers yéen ñi teew à travers ñi teew laay bëggee mu àgg si ñi ñëwul sa am nañu xam nga yow préparé wut lii bu soo préparé woon xajul fii mais dañuy bëggee ñi ñëwul parce que nit ñi ñu ngi ci ay exemple ñii ñi ngi Louga ñii ñi ngi Kaolack ñii ñi ngi Panam ñii ñi ngi fépp si àdduna bi mais ñi teew ñi à travers ñoom laay bëggee samay fans képp ku bëgg a adhéré si Nit Doff Killer Family xaalis moom nombre bi 554 60 77 554 26 00. waaw ex ñii dañuy def liggéey bu naay ci ginnaaw di def. waaw di defar t-shirt yi di def ay carte membre di oote si rajo yi. xam nga di def ay réunion tous les dimanches tous les premiers dimanches du mois franchement liggéey bi ñuy def si di dof moo tax su ma demee kenn du xam ni dem na. absolument su ma demee day mel ne maa ngi fi ndax ñoom. donc bépp fan si nit doog foo mënta nekk si àdduna bi maa ngi lay bëggee Mameen Buzz di bëggee Mameen Mass bi nekk fii nga xamante si nii lu muy daj si nit doog dafa bari man mënuma lim ay tur parce que nit ñi ñoo ma bëggal seen bopp. absolument su ma commencé lim day am ñoo xam ne dañuy wax sax. <laughs> doc ñëpp ku leen jiw képp ku bëgg nit doog képp ku mës a wax si man lu nice képp ku ma défendre fu ma nekk ak fu ma nekkul di commencé Louga parce que waa Louga bu ma jàppalewul woon du ma àgg si Dakar. absolument waa Louga ñoo fu ma mën a agsi Dakar fépp fu fan su këll nekk si Sénégal fu mu nekk ci Afrique fu mu nekk si àdduna bi maa ngi lay bëggee di la jox sama five di la di la si li ngay daj lépp quoi. nokkat di brokas këla këla avant ñu ñëw ci mot de fin bi. waaw troisième album bi euh, xam nga dëkk bi instant bi dafa jaxasoo te nit ñi dañu toll si période fitna donc ñuy ñaan yàlla euh, mu def si jaww. ñaan yàlla mu defal ñu li gën si ñun. amiin mu àtte ñu ak ñi ñuy tooñ yàlla rek mooy borom doole fi kenn amu fi doole ay trois jeux bi yooyu amuñu doole benn wàlliw rek mën na leen rey tey su guddi waxumala ak ay yeneen ak ay yàlla mm. donc yàlla rek mu am doole moom mi am doole nañu protéger ñun waa Sénégal nañu protéger ñun waa Afrique nañu protéger ñun jullit yeeg chrétien yeeg ñëpp donc lu ñuy ñaan Sénégal mooy jàmm mu am fi ñi nga xamante si nii danoo naa feex mooy ñi nga xamante si nii suñuy jotee maay bi rañaan waaye bu bu nu ma toj këru jàmbur wala ñuy wax ni duma sànni xeer wala ñii di wax ni damay def li ma def laaj ñi koy def xam nga loolu ex loolu mooy wax pour gars yi ne waaye artiste bi de moom dafa bëgg jàmm artiste bi de saltewul moom dafa cool alors que ñi koy def non non du question ay kii wala kaa mais bëri na ñoo xam ne bu ñu leen joxee maay message yu naafeq yooyu la ñuy lancé dama bëgg ñu jukkal képp ku wàcc ci mbedd bi di fight Sénégal amu ci kenn ku ci fay xaalis amu ci kenn ku ci fay xaalis kenn ku ci gañe dara ñu si bëri ñu ngi leen di dóor ñu ngi leen di tëj di leen tëji bu dul dara ñu def ko pour suñu mbokk sénégalais yi ñu rey étudiant bi ñu rey keroog ñun ñoo taxoon mu dem di manifester ñu rey ko à notre amuñu lenn luñ ko fayee lu lu di ko wax ni waroo woon dem di sànnante ay xeer loolu du waxu loolu du waxu gentleman loolu du waxu gentleman dama bëgg ñu nekk ci mbedd bi ñun du ñu inciter à la violence mais dëkk am na fu muy toll il faut nga fight say droit ñi nekk si mbedd mi li ñuy fight ex seen droit la maintenant dañuy ñaan ñu def ko ak jàmm ñu def ko ak xel bu positif. yàlla xëpp si ndox bi sedd li ñuy yóotu ñu jot ko si jàmm quoi. amiin sama mot so sama mot de la fin. waaw ex damay bëggee ma amee Fallou. Fallou Diouf bu Louga. sama gain la. foo ma gisul seen day yéeg ak man instant bi yàlla daf ko defoon mu xaw a tawat ñuy ñaan yàlla mu gën a tane ak ma meen Pambay. Paa waaw Paa Paco oxygène. waaw non ah, Paco oxy mais. waay Paco Pape ma koy bégee parce que liggéey bi muy def si ginnaaw nit def mënuma ko fay. di bégee sama famille ki nga xamante si nii gàlleem la ñu nekk muy sama tons ak sama umpaañ. moo ñuy jox ñuy lekk moo ñuy jox ñuy naan. dama leen di big up ak sama famille samay sœur samay frère di bëgg ku mel ne madam Sow ak yeneen nit yu bëri yu ñuy woo di ñu soutenir di ñu jàppale nit doof nit ñi ñoo ko bëggal seen bopp loolu yàlla moo koy def maa leen di bëggee yéen ñëpp. jaajëf conteneur bu bëggee. one love sama gars yi one love mais. jaajëf voilà donc merci guys donc chers téléspectateurs tey dañu privilégié euh, li nga xamante ne moom mooy musique bi euh, parce que dañu am occasion mu ñëw ñu def ko en live boobaa dañuy toog ñu def question. réponse question réponse mais kam da doon dem et que fansam farsi dañu fi toog te il faut ñu defal leen show yéen téléspectateurs yi nekk ci àdduna bi aussi on vous doit quand même ce show je pense que vous avez été servi comme on dit aussi yow it euh, mënuñu la fay euh, ñu ngi lay ñaanal vraiment le meilleur euh, yàlla may la guddal sa fan et puis bàyyil ak sa sago et puis que ce public bi aussi topp la di la show love yow it aussi nga nekk fi di leen show love quant à moi waaw ayca <laughs> dama lay delloo ñaan bi parce que aussi yàgg nga si rab Galsen bari na nit ñoo xam ne dañoo dem ba xeeb ko benn instant ndax xaalis bi bariwul mais yow passion ngay demee boobu ba léegi tey bu ñu amee plateau yu mel nii liggéey la boo def donc yow comme ni nga ko waxee li sas la rab galsen daf la soxla lépp loo ci mënta def pour mu dem si kanam loolu sa liggéey la sa sas la ma lay masawu coono si li ngay daj lépp di ñaan émission bi dem ba nekk émission bi gën a mag si émission àdduna bi yow aussi li ngay sendu si sa carrière yàlla defal la ko amiin one love pour li ngay def ci rap galsen one nation sama gars yi di bruit pour one nation Merci, merci à toutes et à tous. rendez-vous, Inch'Allah, donc, euh, restez C'était One Nation. Excited on the microphone. Hip-hop, phone, and I'm out.